Santo Colobane nekk ak Koña 2 tey la open press am open press am tey la woon nag léegi nag euh, waa Lutte TV ñoo fi ñëwoon tey seet si ko quoi ñu bàyyi Koña mu nuyoog waa Colobane ak ban yëg-yëg la am ci ni Colobane gën a tey. auzu billahi mina seytaani rajim bismillah auzu billahi bismillah ina wane yàlla jërëjëf borom Touba maa ngi sant yàlla baax di jullit ci yonent bi sant sama ñaari waajur waa di nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu Colobane gépp waaw di wax ne aw ma seen fay gis naa taxawaay bu baax a baax a baax ñu ne xale lañ dañ ne ci Colobane bi xam nga yàlla jagle la ñu ne ci ñuy bëree te ñun drapeau Colobane moo ñu ñor waa dañ bëgg autorité yi Colobane yëpp ñu jóg jàppale ñu di san sama gaay bi teew yëpp xam nga ñoom lan 2000 Galas Diagne Serigne Oulay maa ngi koy san bu baax a baax di san waa Divorcé xam nga di san nag. ferrailleurs yi ne divorcé yëpp xam nga suma ma limee damay juum mais gaa yi axlu ferrailleurs bi soupon gars yëpp maa leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm. mais Konia dinañ ñëw ci sant yi dinañ ci ñëw bu baax a baax mais bu ñu gisee kii nga waroon bëril ni ah ñu bëree bëri dañ ne yow yaa delloo avance bi ah bu ñu joxaat la keneen ci diggante bi ñuy laaj nag lan moo waral loolu sa diggante kooku lan moo yàq combat boobu nga leeraloon ci. waaw combat boobu noonu moom moo yàq combat bi réparé ma joxoon raku marle waaw mu dem ba ci biir ne xam nga avance dafa jóge bëri ma bi sama gars la dama jox avance bu yàgg te demewul noonu xam nga loolu moo tax mu dul avance bi du moom donc sept adversaire jox nañ ma ko waaw jox na ma caatu baay pare jox ma rawul kara kun ma jox ko dala avance bi ak amaab Malika ñoom ñëpp. waaw Konia ah ñëpp nee na nag neexoo wutal adversaire ndax euh, kii biñ la gis chef de l'état biñ la gis moo tax waaw ñu lay laaj yow Konia ah buñ leen bëggee jëlee fii. ci Iba Mar ngeen xam ne yéen Iba Mar rek ngeen xam waa ñu bëgg leen a yóbbu arène nan ngeen di préparer pour dem arène nationale. waaw ñun yàlla dafa dogal bëri nañ fu ne waaw ah, ñun bëri nañ drapeau chef la woon te foofu moo gën a sori dañuy dem bëri ji ko kon instant bi arène bi dara ñu bëri nañ Pikine bëri nañ Diamaguène bëri nañ fépp ay mbabat ngeen ñu topp gars yi xam nañ li ñuy wax bu baax a baax a baax waaw. Konia 2 buñ ci seen mag seen champion muy Yaxya Diop mu ne écurie Ndakaaru ñu ngi forme champion yow loolu boo ko yëgee nan nga war a euh, comporter woo ci biir écurie bi. waaw ñun ay xale lañ rek dañ ne ci yoon saa bi ñoo góorgóorlu ñoo ngi ci yoon bi yàlla mu ñuy dimbali nag moom xëy na loolu moom xam nga kii la rek moo tax mu wax ko xam nga mais yaxe sunu grand la waaw sunu lépp la quoi. waaw ñun ay xale lañ ne ci écurie bi di par sant nag avant tout perkat yi ñoo ngi koy sant bu baax a baax dafa son ci écurie bi trop kati Diop ak ñoom Seydou Fall waaye ki Ndakaaru bi yëpp. waa Koña sa adversaire yow lan nga koy wax lan ngay wax sa adversaire waa sama adversaire li ma koy wax mooy dama koy ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ma jàmm incha allah samedi soreetul le 27 samedi eh, dimanche soreetul le 27 dañ ñaan yàlla yalla may ñu ndam ji am rek ginnaaw xam nga ni ko fi nekkoon moom mën a wax ci ginnaaw am quoi. mais bu ñu xoolee combat bi jàpp nañ ko ñaari yoon yoo xamante ne si chaque jour dañ naan la vingt 27 la 27 ba combat bi yow ñu lay laaj préparation combat boobu en tant que mbër bu ndaw ah métiwaay bi ci loolu lañ lay laaj. waa combat yi métti woon na trop parce que dañ daaw adversaire nga dem ba biir mu doon avance bi xam nga métti na trop mais tamit lu mu ci doon ñu lay xale lañ ñuy compétir xam nga ñun demoon nañ ci àll bi demoon nañ tournoi xam nga am nañ fa dem nañ jël fay tournoi ñib si demaat nañ tournoi. xam nga mu yaaxu ñu ñib si te dem nañ ba demi final bii ñu jël ko kon ñun ñu ngi ci bi di compétir rek même bu ñu bëri arène dañuy dina ci àll bi quoi di bëri ay tournoi waaw. mais sa adversaire bi li mu wax nee na nee na daa dugg fii génn yow nga ne yaa koy jël. ah ñu lay laaj yow kooku ndax nee na bu suur baa moom comme li ngay wax ba jël kooku na nga dëggal sa bopp waaw boo bëree dina la dina la daan boo xeexee mu duma la waaw loolu moom waxu mbër la rek waaw moom bu ma bëree na ba daan ma duma ma li ma ko signature bi dafa leer nee naa ko du man yow waa Colobane den maa yoon yàkkamti ma dama koy defaral rek am nga dem xooli leen incha allah comme ay moroomam rek. waaw Konia kon ñu jox la nga wax sa kàddu gu muñ ñu laaj la nan ngay nan ngay kii waa Colobane nan la waa ko Colobane di mobiliser woo ak yow nan ngay ñëwee arène nationale comme sa premier la li ñuy xaar ci yow. waaw arène nationale incha allah day ñaan dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilahi parce que ñun ñoo ko immigré quoi ñun ñoo bi arène nationale bu baax a baax a baax ñun ñu demoon drapeau chef de l'état di nuyu nag sama gars yi a baax a baax ñoom franc xam nga di ko nuyu di ko san bu baax a baax gis naa taxawaayam xam nga ñoom bébé Diène xam nga Siaga bébé Diène di ko ñaanal ndam ci combat bi mu jéem xam nga ay ñoom Mbar gars yi maanaam drapeau équipe nationale maa leen di san bu baax a baax di san suñu coach yi Père Omes xam nga ñoo leen sant bu baax a baax baax waaw non Massamba Ndiaye la Massamba Ndiaye da ciy jàpp bu baax a baax a baax Massamba waaw moo topp sama ginnaaw ay ñoom dan xam nga di leen nuyu di leen sant bu baax dañ may taxawu quoi billaahi wallaahi ñoom laay bébé xam nga xaw ma seen fay xam nga ñoom Amet waaw Amet marché asale maa ngi koy bu baax a baax a baax aw ma fayam Cheikh Balla Gaye maa ngi koy sant bu baax a baax Séeri Ulay Galas Diagne waaw yow moom spécial maa lay béggee lu bari yàgg waa divorcé xam nga seen mafia bi yéen ñëpp maa leen di béggee di leen siyaar waaw di nuyu nag waa Magem bi ay Assane Sarr mi maa ngoy san bu baax a baax di san waa tubaa Toul gépp nag xam nga sama dëkk waa Kër Laman dondol ngaan ngaan xam nga Sinjaan Caajaw Sambaay sama dëkk Njon xam nga Seseen fépp ñoom Adama Ndiaye ñii maa leen di san ñoom Maam Góor Jaaji xam nga Madiba Ndiaye péri Cheikh Bokum autorité ne fi yëpp xam nga waa kër gi ñoom maire Dieng Aïda Diallo Magat Faye xam nga ñoom Paaline Papaaline waaw ñoom moo di xam nga ñoom maam bu ñoom ñëpp xale yi ndaw ndaw ñoom Pape Aïssa ñoom ñëpp maa leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm waa koñ bi nag di leen baalu ak bu baax a baax a baax que xam nga rek ay xale lañ quoi dañu nekk ci koñ bi tamit xam nga lii nii xam nga ñu leen di ak bu baax a baax parce que am ñoo xam ne nii wéeru ñu ngi ci biir kër yi waaw sama mbokki mbëri ci ginaaw yëpp maa ngi di bégg ajoo Moussa Yeri maa ngi leen di séntu ci diwlin bi ak ceeb bi pour ngeen andi ko waaw di sant a ñoom mère waa koñ bi ñoom péri si maa ngi leen di ñëpp As waaw